sana ilahi bil munajati wa badal amaydi amati sana ilahi bil munajati wa badal amaydi amati a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni uhizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytani rajim rabbi a'udhu bika min amajati ash-shayatini wa a'udhu bika rabbi an yahdurun allahumma bihaqqi wajhillahi ta'ala al-karimi salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi am mbégte di leen dalalaat ci seen biir émission darul xasanaat kaddu gi bàyyi fii ci Touba Milano ci rajo xasida online ci micro yi bi ba ngeen mën koo dégg seen mbokkum taalibe ndongol ndonge Abdoulahi Diop ci xarala gi Serigne Modou Mbaye ñoo ngi koy nuyu te ko ziar kon ñoo ngi leen di nuyu te di leen balwaq di leen balaq tey sàkku ci yéen ñaan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 dañuy dem ba doon jaami loolee nga xam ne loolee fi toll moo ñuy commandé ndax gis nga nit ñi fi mu toll xalaatutun maanaam li ñuy wax famille maanaam euh, ak ak ak lu mel ni diggante doom ak wayjuram alal jaar na ci ba gis nga tey jii ci réew yi ñu nekk da ngay gis doom joo xam dana xëy faat ay wayjuram ngir mën a donn alal ja loolu gis ngeen ko ci média yi ba tey dangeen fa gis di ngeen fi gis ko borom euh, soxna soo xam ni faat na boroom këram ngir alal ja ngir donn ko da fi gis borom kër boo xamante nii soxnaam dana am wërsëg